abonné leen ci suñu chaîne YouTube yu wér ci réew mi daanaka viral na trop daf ci déclarer li nga xam ni mooy candidature am ndax mi ngi wax une victoire pour 2024 ndax suivre nga vidéo boobu. waaw euh, daanaka juste avant may ñëw ci émission bi laa ko gis. Euh, waaw déglu naa ko déglu naa ko dafa doon dajeek ay militants euh, defe naa en tant que chef de partie mhm. déglu naa ko. ah mais commentaire. Ah, bi ma ci mën def <coughs> d'abord euh, Macky Sall président de la République la waaye dafa. am aussi beneen ndomb tànk maanaam njiitu APR alliance pour la république ak Benno Bokk Yaakaar bu dajeek ak militant nag wax ak ñoom dama jàpp ni ay militant la waxal euh, est-ce que leer na yow yow yaa ko wax man du ma def commentaire boobu am na lu mu leen wax ne fii ay fan dina wax ak réew mi Euh, defe naa li gën mooy ñu xaar ba mu wax lu lu leer. maintenant bu fekkente ni ci 2024. waaw victoire xam nga victoire moom mën na am ambition boobu. Mhm. te man li ma jàpp euh, tey bu fekkente ni dafa bëgg dem ci élection bi defe naa pour mu dem sax deuxième tour day jafe ci moom. Mhm. gëm naa ni sax deuxième tour bi. ñu éliminer ko. mooy li ma gëm xam nga lu tax Pape Ngagne président de la république ñu koy woowee makisal Sall def réforme maanaam indi ay coppite ci constitution wu Sénégal li ko waral te mu waxal ko boppam dafa ne. man dama bëgg ñu tollu jamono joo xamante ni ci Sénégal dootuñu tudd troisième mandat njiitu réew boo defee ñaari mandat foofu nga yem loolu mooy sama mbébét loolu moo tax ma def réforme boobu jébbal ko sénégalais yi ci référendum ñu voté mu wax loolu benn yoon ñaari yoon ñetti yoon mu bind ko ci téeréem ne second et dernier mandat souvent dama lay suivre nga ciy sax insister parce que ku ne second xam nañ ci euh, wàllu tubaab euh, second amul ñett ñaar lay yem mais second ak dernier mandat xëy na dafa bëggoon a dëgëral mbir mi Pape ngañ suñu chartu réew xam nga lan la wax ci kan moo war bokk ci élection présidentielle ak kan moo warul bokk <clears throat> ki warul bokk surtout loolu moo ñu gën a soxal dañu ne yow mi Pape ngañ boo amulewul trente cinq ans munoo bokk boo amee lu weesu soixante quinze ans bokk walla nga am loo xamante ne lu ñuy tuddee inéligibilité ci yeneen fànn mënuloo bokk constitution boobu moo ne njiitu réew bu def ñaari mandat yu tegaloo mënatul bokk benn constitution bi atte na président makisal bu fekkente ni yéeneem mooy présenté wu pour troisième mandat ñaareel bi moom ci boppam doom atte na ko jiitu na ko te dañu nekk ci réew nag man ma continuer di gëm ni di gëm ni valeur dafa am solo mhm. ci Sénégal mhm. Mhm. joxe sa kàddu nga ñëwaat ëlbati kàddu gi ne maa waxoon waxeet defe naa loolu sénégalais yi duñ ko nangu kon nag man ci gàttal pour vidéo bi sincèrement dama jàpp ni euh, c'est le président de l'APR moo doon wax ak militant wu APR puisque dafa ne dina jàkkaarlu réew mi ci message boo xamante ni message à la nation la ñu xaar bu boobu jotee mais pour man atte bi moom franchement jarul sax ñu yegg conseil constitutionnel parce que ki nga xamante ni moo indi réforme bi atte na bopp d'accord alors Mamoudou euh, yaakaar naa ni. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot yu wér te wóor aju ci réew